soo bëggee publicité gaawal gaaw nga woote ci si numéro bi 77 254 84 39. gis na bii yoon boole ma ko defee yéen ñett yéen ñëpp laay ubbi seen tuun yi sotte ci ku ne tuunam bi acide dégg nga li ma la wax na set wecc te koy yëg. Alphonse kañ ngay dégg. la moo tax nga naan papa yow ak kii yamoo leen yow ak Duudu yamoo leen. ba mu ba mu di ma ko laajaat. Hmm. waaw. waaye dama ko wax li ma ko war wax. sa papa lan la war a nëbb de sali ñun ñi sax xaw ñu si dara xaw ñu lan la fa denc néeg te néeg boobu moo de. yaay. ay yaay ci jëmm Jésus yaay nga baal petit ay dimbali ma li nga def nga dindi ko. du ma sa morom ah du ma sa laa wax. Eh, eh, mani xàmme naa la. xam eh, naa dama ni xam nga maa xam dama la jógal ah jógal. bàyyi ma ma toog fii nekk ci bamba petit koo bëgg bamba nga bëgg gis. bamba mi ngi lay woolu kaay ñëwal. bamba waaw <laughs> ñëwal kaay. bamba yow. ci yow wante ma war kani mi dama ne la fi ma kani def kani yërëm naa wala kani ni ma déggale déggale woo ma noonu Sango Gouma TV Sango Gouma TV Sango Gouma TV la scène qui vous ressemble et vous rassemble